ba léegi rek donc Equivox TV donc Vox Arena label Vox Arena mu ngi nekk ci g cinq G5 bi ni leen ko waxee du du du duñ tàyyi di ko di ko waxaat mooy euh, galaawu benn galaaw boo xam ne cinq grand grand combat ñoo si nekk cinq grand combat yoo xam ne comme ni ni ñu koy waxee rek du duñ ci tàyyi combat bu nekk rek boo ko tëggoon tey euh, euh, arène nationale mu mu moo war a fees léegi ñu boole leen cinq cinq grands combats am am am parrain bu nekk am am parrain ñu boole leen ci ci benn ngoon wat leen a tëggandoo donc fi fi fi nga xam ne moom moom mooy arène nationale loolooy nekk première journée bi nga xam ne donc euh, moom la Vox Arena di di tëgg. suñu ñaari waajur bu baax a baax. tamit euh, Serigne Bassirou mu sëñ Fallou di suñu wasila waa di nuyu waa kër sëñ Fallou yëpp waaw ndax ñun fa lañ waaw. di rafetlu tamit lii rek xam nga kontaan tamit si waa Vox Arena bu baax a baax a baax xam nga taxawal li daanaka man sama combat yombul woon pour ñu taxawal ko. parce que boobu ba léegi yàgg nañ ñu ut ay adversaire mais kii la yàlla dogal man ak moom ñu bëre. donc kooku mooy euh, ki ki ki nga xam ne moom mooy Fourrière bu ñu jógee si moom jox kàddu ki nga xam ne moom mooy Baye Baye Baye Mandione Junior donc nekk si écurie Thiaroye sur sur mer. alors moom it yàlla dogal mu mu yàggagu fi trop waaye mu def fi parcours boo xam ne kaar kaar kaar macha allah huit huit huit huit huit combat la euh, kii nga xam ne mooy mooy mooy Fourrière ak ak naka nga gisee la vo la label bu Vox Arena. waaw di wax ala onze bi kalimatillahi taamaati kulliha min sharri ma xalaqa waaw gannaaw ma sant yàlla julli si samay waajur di ñaanal suma papa ak sama yaay yàlla xare leen aljana waaw di nuyu monde entier xam nga. waaye di wax comme box arena bi nii xam nga li yombul daal waaw ñun ay xale lañ ñun dañuy liggéey rek waaw tey bu ma yàlla mayee combat dama koy sant yàlla ndax combat jafe nañ gudduñ tool nii ma def samay preuve làmb xam ma boole ma ak Fourrière di ñaan yàlla may ma ndam si kawam. yow ku mel noonu yow ngay nga jóge si si li nga jógee lan lan moo la du du dugal ci moom yow yow kii euh, waaw boo xoolee boo xoolee Vox Arena ba muy ba muy taxawal làmb ji sama combat moo gënoon jafe pour pour mu taxaw. parce que boo xoolee nag ku daan kàngam kàngam yaa kàngam boo xoolee da ngeen xaw a sax euh, tolloo taxawaay. tolloo si lépp si bëre mën a bëreeg euh, doole ji kar macha allah ak taay beeg lépp ku daan kàngam waroo fee mën a bàyyi ki ki nga xam ne mooy Fourrière lan moo waral yow yow ngay ngay waxee essence bi ngay waxee pour pourquoi. làmb la rek làmb la incha allah ba jour rek. noonu. mën a bëre am am am am am mbooloo nekk si si dynamique lan lan moo la dugal ci moom Mandione. waaw man moom xale laa man yàgguma si làmb 2016 laa dugg ci làmb. waaw xam nga man kon yàgguma si làmb. Mm-hmm. mais dama ñëw def samay preuve comme ni ma la ko waxee rek man làmb su ma amee combat day mel ni tey laay musam combat ñi ma bëreeloon fàtte naa leen. Mm-hmm. barki fu Fourière euh, bu mu wax ne suñu waa dañoo dem seeti combat beeg yooyu noonu loolu amul nit du wax lu la wóorul. Mm-hmm. sans comprendre dama toog di Mourou Anta daa demee oo si si gars yi la ne defe naa ne ma sa bëgg ma ne ko de doon nañ dox sama combat ak comme te Fourrière moo tege dama koy jël man maa ngi jëlal sama bopp waaw. waxuma ko dañoo seet làmb ji de damaa ne waa Gàllem dañoo séddu séddu xam séddu. xaw xaw ma luy séddu. séddu. waaw mais waaw jot nañ jot jot nañ mos dara quoi. maanaam. maanaam Baye Mandione jot na mos dara. ay combat ay combat yàqu si si si yeneen mbër quoi. comme fi mu waxee ne adversaire man dañ maa wax frère ma ne baax na. amul mbër moo xamante ne su ma tëddee guddi naa am lu may xalaat ci yow kon suma ma gënee def ma bàyyi làmb. am nga lu lu la bàyyi mu ñoon wax ci combat bi. waxaguma dara waxaguma dara ndax moom ne lu may wax entraîneur rek su ma ñëwee mu jox ma lekk ba suur moog jabaram Rose ama seen fay. sa sama papa bi mu gaañoo ba léegi. jabaram moo ma yor njoon yoruma de jabaram moo ma yor moo may defal lu ne na mu ma dara. waaw di ñaan di ñaanal sama papa bu baax na dafa amoon yaakaar ci man trop trop ba sama combat passé man ak kàngam damaa bëre rek ñaari fan la si teg mu gaañu waaw di ñaanal xam nga yàlla xare ga àjjana ndax su ma wax sama xol day jug na dafa amoon ci man yaakaar nee lu ma Moussa wax jox combat mbër mi nga xam ne dafay të jël ko mhm. boo ko jëlee yàlla da la ciy may ndam ndax da ngaa amoon si man yërmande ndax ñeme ngaa bëri ak ak ak Fourrière ndax ñeme ngaa xeex ak ak Fourrière yow billaahi waaye yow man samay combat amul amul ay cinq minutes ak i deux minutes li ma liggéey laa ñëw imposé xooluma Fourrière lu mu liggéey li ma liggéey laay appliqué tey yàlla nga si suturaal li ma may ndam maa ngi tegale sama six victoire. Euh, fourrière nga nekk si équipe équipe boo xam ne Grand Mbolo demoon na ba ba ba nekk si meilleure équipe écurie Sénégal waaye fan yi ñu ñu année yi ñu ñu jóge gis gis nga ki nga xam ne mooy Zarko dafa dem ñi nga xam ne ñooy ñooy mobile de ñoom ñoom naan yi <laughs> demeetul noonu donc euh, est-ce que yow. yow responsabilité bi bi bi bi nga am ci combat bi xam nga ko xam xam nga ko dëgg-dëgg. waaw dañ dañ koy jaale waajuram rek bu mu ñàkk ko waaw loolu moom dafa métti ci xol. fii ku fi nekk balaa sa sa waajuru dem dalaa daa am lu la sas sama maam balaa moo dem daf ma ne fulo mooy nit. jom mooy jom mooy jom mooy nit fula mooy mooy mooy kii quoi. ak suma jëf laa boole ñëw ma si làmb di ñàkk a fayre ak ñàkk a fayre yooyu noonu. Mm-hmm. damay ñëw appliqué sama jëf ak sama fula laa boole. Mm-hmm. sama papa loolu ma wax man sama papa ñëw ma ñu may ñaax lu ma liggéey la ci moom mu ñaanal ma waaw. xam ngeen ne G5 ni ñu koy waxee fi ñu jeexalee mooy ni leen ko ak expliqué sànq dafay am 5 mbër yoo xam ne daañu jógee si gala boobu ñu ñu yóbbu yóbbu leen ci final 8 te loolu li fay yóbbu mbër mbër mi moo koy liggéey. moom moo koy wane ci ci wàllu bëre moo koy wane ci wàllu mobilisation moo koy wane ci ci fànn yëpp ndax gara euh, Fourrière mën na joxe fi assurance ne di dina bokk ci final eight. man de jàpp naa ne man sama combat mooy dàq ci combat waaw man loolu laa jàpp sama combat man mooy dàq dàq si combat yi. Mhm. que mosuma bëre combat bu pare pare yi ko kii kontaanuñu quoi. Mhm. ndax Mbaye Mandione mën na joxe fii ay assurance yu wóor ne dina bokk ci cinq mbër yi ñuy yi ñuy tànn ndax seen li ñuy wone ci ci ci ci gala boobu. waaw ku seetaan Sa Thiès Boy Niang xam ne loolu combat gën a koo rëy xoolal jour boobu combat yi fa ne maa jël meilleur combat. yow eh yow da ngaa foog ne yow yaa yow 2016 nga dugg si si bi man 2015 laa dugg ci arène bi te avril 2015 laa dugg ci arène bi dama dugal ko sa bopp waa léegi lan la yow. da man damaa ñëw def samay preuve nga naan ma fii bay jaar. waa léegi lan waa léegi mooy lu ma wax lu ma expliqué kii sànq ñàkk pexe moo tax ma jël la te bu jour ba waa di nga xam waa baax na waaw. waa dama damay woo supporter rek xam nga waa di woo jours yi xam nga gars yi comme ñu def comme ni ñu ko daan defee rek mobilisation bi xam nga. waaw di woo caare comme ni daan defee xam nga ñëw huit heures toog buntu gale añ añi ma yëngal si suuf yëngal ci kaw ak yëpp ñu dem stade dem defal sa waay yii kii taxu moo jug sax. merci kon ñu. yow da nga bëri wax mais bu jour boobaa ngay xam ne am nga combat yow boo demee sa koñ sax dinañ la ne hey yaaram bañ ne la ah ñu ne la am nga combat. yow yaa ngi yaa ngi fourrière nii toog fa damay ñëw rek àggali exposé la loolu du ma dërëm yow xam nga ne dërëm laa sax yow mi sa jëm boobu xam ne dërëm laa. voilà kon baax na kon dërëm laa maa la dàq maa la dàq xeex lépp loo lu ñuy woote si làmb maa la ko dàq. waaye da ngaa ñëw. <laughs> kon mbokku mbokku mbokku mbokku e-, Equivox TV donc combat boobu la leen euh, Vox Arena indi woon tey euh, ñuy xaaraat beneen euh, ci léegi ci kanam ñu ñu indiwaat leen beneen combat incha allah jërë ngeen jëf. ñu ñëwaat fi tey bu ngeen xoolee sa sama droite ngeen gis fi ki nga xam ne moom mooy <laughs> Noiro nekk école de lutte Doudou Ba Ba Bakassar fii sama ca càmmoñ ngeen gis fi Moussik nekk écurie Thiaroye sur Mer. écrit ji jimboori jimboori jimboori jimboori pour moi Noiro yàlla dogal na xaw nga gëj dugg si si si arène bi lan moo waral sa sa sañuwaat nga nga nga choisir mbëru mel ni musique pourquoi waaw axusu billahi mina seytaan rajim bismillahi waaw xaw naa gëj si làmb nag mais xam na rek demoon naa benn instant li ma soxloon làmb mënutuma ko woon jox ma xawoon arrêté nekk ci leneen mais xam nga wax ji bari del ñëwaatal ñëwaatal ñëwaatal fu ma toll amagoo combat fu ma toll ñëwaatal ñëwaatal comprendre nga sama personne na si man trop père jaxate ci ko maa ngi koy nuyu au passage ki nga xam ne moom mooy euh, Noiro yaa ngi koy dégg bu baax Noiro onze onze combat la def quinze combat quinze combat la la def am onze victoire ak quatre <laughs> défaite kooku di def lu bëri ci ci ci làmb su bëree mu neex su feccee mu neex yow lan moo tax musique nga nga nekk sa yoon lan moo tax yow nga nga choisir mbëru mbëru mel ni moom. waaw onze billahi min seytaan rajim ki naa doon sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant waa Caaro yëpp di sant tamit ñu tëgg combat bi arena yaakaar naa noonu tudd Vox arena di leen sant di leen gërëm moom it maa ngi koy sant di ko gërëm ndax mbëri bëri dafa ragal sama avance ah waaw lan moo waral a xam nga waral loolu xam nañ kuy bëri di nga entraînement ba oos di nga contact ba oos ndax bëri ngay andi ak xeex ak mbooloo bu takku nag waaw man loolu te kii dama doon rêve bëri moom dama doon rêve bëri ak moom pourquoi waaw ndax moom moo ma raw si làmb moo ma rawoon si làmb temps yooyu waaw waaye léegi ko euh, rawatu la rawatuma soo xoolee samay parmès ak parmès am man ñu ma daan moom daanu leen non ñi may bëri ñi ma daan ñi daan man ñi ma daan ñoon ñoo mën ko daan yow ñi ñi ñi nga daan ñi ma daan man ñi ma daan. Mm-hmm. moom su génnee ñu mu daan ñoom mhm. ñee ñoo leen ëpp tour ñoo leen gën ñoo leen gën a nekk si làmb man Zambala ren laa bàyyi sama bopp ah Zambala kenn dàq ko bëri si arène bi mhm. moom nag ndaanaan la wax dëgg yàlla kii ndaanaan la mhm. dama doon nekk booy nii di seetaan ay combat ku mën a bëri ni champion la nag te borom baax la tamit mais dama koy sant di ko gërëm ba mu jëlee sama avance dama see kontaan man làmb dama ko bëgg père billahi dama ko bëgg xaw ma <laughs> damay ndax yéen tamit def ngeen geste bu rafet wax dëgg yàlla soo leen yoxoon ngeen jël seen yóbbu ko feneen mais ngeen and ko si mbëri investir si mbëri tamit ñoon di sant di leen gërëm te jour bi tamit yàlla réussir ak jàmm loolu ci bëgg si ñun rek yàlla ngeen ko gis yàlla leen seetaan si soxla loolu laay ñaan ci yàlla maanaam ñeeg si làmb ji supporters yaa ngi fi amateur yaa ngi fi waa làmb ñu ngi fi ñoom xam nañ soo leen waxee bu waxee moom ñu mbëreel man ma wax ñu ma ñoom dinañ xam ñooñ ñoo ñuy atte quoi mm-hmm. li ñu li ñuy indi fi li gën a ëpp solo mooy waa Box Arena di leen sant di leen gërëm xam mun naa ne man sama benn tànk mu si làmb sama benn tànk génnoon na mm-hmm. kon ñoom bu ñu ma delloosee rek mm-hmm. maa leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla nag sama diggante musique li ma dugalaat si làmb ma jëlee ko si ma daan ko jëlee bu rëy am ndam si kawam. d'accord yaa ngi koy wax nee na ñi mu daan moom donte moom si ñaari défaite mi moom kii di Jibson ak Tonnerre 2 bu Ndakaaru ñoo ko daan waaye nag daan na ay ay mbër yu mag. kii day wax rek ay sàkkal ma maa ngi taw maa ngi toog sànq naan waaye ana sàkkal mbër boobu ko ba muy bër waaw sàkkal 2 la léegi moom ba muy bëri Sambala si hmm. combat yi début début combat Sambala yi la ba muy bëri soq début combat soq la hmm. ñooñ nga si nga si nga si mën a lim ñoo xam te ni mën nañ ñii populaire nañ hmm. man nekk ñi ma bëreel ñëpp dañuy nekk seen diggu doole seen première défaite maa leen ko jox man maa ngi bëgg cinq personnes yoo xamante ne mën naa leen si teel seen première défaite maa leen ko jox te boobu ñu ngi seen digg laamu di def fuyee falaam mbaa bokkoo si musique yi jam yi ñuy ñuy am Papali man damay waxuma la jam dama dama la jam dama lay def feebaru bopp xam nga bopp <laughs> doo nelaw foo toll musique rek ngay dégg xam nga xam nga yoo nabrut moo tax mu am nabrut men hmm. yoo moo su ñëwee rek si bopp lay ñëw naan si nopp la ñëw wii wii man naan noonu laa mel kii su nekkee fii naan ay ay ñu ma doon bëreel man ñooñ ba may bëri ñoom ñoo ma raw si làmb damay man sama ma soq la mm-hmm. mu bëgg a wax ma léegi man ba may bëri ñooñu ñooñ tool tooluñ seen digg dënd man ba mm-hmm. sama premier combat maag soq la mm-hmm. sama deuxième combat maag booy libu booy libu mortal la tudd yaa ma dégg mu nekkoon nekkul mbër bu mag ku ñu ko jox avance am mu ñu jox ma ko si 15 jours damaa jóge soq rek 15 jours ma ma bëri ko bëri moom daan ko entre man ak musique man ak beneen mbër amul lu ñuy amul amul lu may sóor man noo pression man doomu aadama mënu ma teg pression man ni may waxee yow nii ak lees nii noonu laa mel. de début à la fin. du ma mos a changé ni ma mel nii la laa mel. waaw. mais yow yàgg bi nga yàgg te te bëriwoo est-ce que yaakaaroo ragaloo perte say repère tuuti. dara dara perte wu ma ko. mun naa toog quatre ans cinq ans six ans bëriwu ma perte wu ma. parce que man mun naa ne bi ma nekkee booy nekk doon sàmm nekk ci àll ba nekk booy nekk daara ja ca laa doon bëree ba ñëw ndakaaru waaw man du ma booy taawoon saalum saalum laa pire et dire waaw. d'accord kon yow nee nga ñëpp ñëpp a ngi si combat bi musique waa waa waa kër ga ak ñëpp mais léegi boo amee looy looy woote euh, sa fans yi sa supporters yi loo loo leen di wax bu jour ba ak kii loo koy wax moom. man daal li ma koy wax. dëgg yàlla nit su la fayee xaalis ba tëggal la combat. exemple quoi soo la fayoon 3 millions war nga kaa mën a jaayal 4 millions man loolu laa gëm man képp ku ma tëggal làmb di ma tëggalal làmb si barke yonent bi incha allah ak samay ñaan waajur bëgg naa bëre daan kii daanaat kii daanaat xam nga moom nee na onze onze combat am ne quinze victoire combat onze victoire quatre défaites xam nga rawee na ma ñaari combat ay victoire moom dama koy daan muy 10 si kàttu njàll ma xoolaat keneen tegaat ko si muy onze te laa ko teg yow de dégg nga li mu wax yow boo boo amoon boo koy wax ak yow sa fan seeg supporters yi gëj la gis gëj la dégg namoon la lool loo leen di wax. man sama supporter samay fan dama dama leen di wax retour de Noiro ça va sauver. ay seen nawetaan nekk caaru yëpp ay waa Mesere. waa Kaani gi waa Daaru Salaam. waa Gëstu. waa Ndox mi Olympique guy gi ah Farba. cosaan noo déggoo ay see yooyu wër ma yëpp maa ngi di sant di leen gërëm ndax ba bi barki yonent bi soo amee combat ñoom ñëpp penc laa dëkk na penc laa dëkk. laa dëkk ndax su may ñëw bëri sax zone bula la laay takk. waa zone 3 bi yëpp maa ngi waa aslem 1 ba aslem 6 cité waa lëm waa marché ngelaw ngelaw 1 ngelaw 2 waa Grand Dakar ñaar tali zone 3 bi amul képp ku may bàyyi kenn ku may waa Saalum nag. man salum Saalum pur et de la si ndey si baay si maam si maam maamaati maam xaw ma feneen fu dul Saalum waa Segre Seko waa Mbirkelaan Jaamal yaa ngi dégg waa Ndofaan Lagem waa Kaolack waa Daaru Xuddoos Ndóobeen amul ku may bàyyi.